xam ngeen ne dëkk bi jamono yi manqué na ndox lool lool lool loo xam ne ñëpp seen bët rawatina moom fii ñu nekk ci Madiana loolu moom ñu ngi ci ñu ngi ci masawu waa Madi Madiana gi waaye di ci masa masawu waa euh, xam ngeen ndox moom dafa am solo loolu ci ak dund wa jaxalna minal maa'i kulli shay'in hayyin la suñu wax maanaam ndox dara mënu ko ñàkk lépp lépp cay dund xam ngeen ne euh, suñu diina ji muy diin lislaam euh, li ci ëpp solo mënoo ko def tëlaaboo talaab ndox koy maye kon nag xam ngeen ne eh, dëkkub diine rawatina nag jafe-jafe yu mel nii am nga xam ne lépp ndox koy saafarawaat bu fu manqué dana metti lool waaye loolu it nag ñu ñu dañuy dañuy ñaan mbokk dama ko tali bi rek ñu gën ci ànd ak dal ak lu metti metti ñoo xam ne rek dëkk bi dafa am lu mu laaj eh, xam ngeen ne Touba eh, ñi fi woon fañ àggoon ci ñàkkum ndox ñu duñ ko jege xam ngeen ne euh, noonu ko Cheikh Abdoulaye waxe woon ci waxam joojee nga nga xam ne am na ay jamono Touba euh, ku masaan gis jigéen ju sabati donc dañ koy dañ koy dëkk ngir ngir bëgg lu ñu naan ngir ngir booba dëkk manqué ndox ab jéggi na dayo mu naan leen du ma leen du ma leen mën a may lépp ngir dama ci ëgg samay xar boobu boobu mar metti woon na euh, ba ci Madiane gi yàlla dogal na kii nga xam ne moo mooy borom dëkk bii di suñu sony bu xam ngeen ne Madiana daa cosaanu Madiana daara la Madiana daara daara lañ ko sanc woon ndax sëriñ son bi mu ko sanc jamono yi muy nekk yi muy jàng alxuraan te sëriñ bi jëloon ko joxoon ko suñ sëriñ Amsatu Jaxate moom ak moom ak sëriñ Saaliw ak sëriñ ab Ahad xam nga ne ko sëriñ Amsatu ma nga fee ma nga fee ci wet jumaa ji waaye fii ñuy wax Madiyaana boo ñànk lañ ko daan lañ ko daan wax boobu am Amsatu da ko defoon ay ay tool daan fi bay bu ma saan xëy nag suñu alxuraan Jaxate mi leen mi leen daan jàngal da daan ànd ak ñoom jóge foofu ñëw fii dina fi ñu fi ñenn fa jàng ba ngoon jot ñu delluwaat ci ci ga fii tolloog université bi nga xam ne moo moo moo ci ginnaawam rek da ngeen fekk daare daare Serigne Gueye foofu tolloog université bi euh, nga xam ne foofu foofu lañ daan jànge bi wax na ne am na jamono joo xam ne moom ci moom bi ñu fi nekkee di jàng maru métte métti daloon na leen fi ba moom suñu son bi mu àggoon ci mar ba ba ba tëdd bañ jàpp ne sax dana dana dana dana wuy ji boroom nga xam ne wax nañu benn pël moo fa romb yor ak la ñaan ko ca dafa dafa gàndal sax dafa gàndal sonn na sonn nañ ci loolu mu soog leen wax ne mën naa mën naa cee may benn góox satal satala gi lañ jël sëriñ bi naan ci benn góox soog a soog a soog a xiiqwaat loolu ci Madiyaana la amoon yàlla ko na sax kii man na ci am ndax fii ñu fii ñu bënn France bi ci Madiyaana foofu foofu la amoon ngir wax ne lu fi yàgg la waaye naka jekki nag taalibe yi lu luñ mas a am ak luñ mas a ñàkk dañ koy dañ koy delloo ci bi ci dal waaye dëkk bi dafa am loo xam ne la laaju ko te mel na ne ñu ngi koy ñu ngi koy bëgg xewal léegi mooy lu jëg ñu jàpp ñoo ko war a saafara suñu suñu te loolu jàpp naa ne di ci jëfandikoo xel baax na ndax wàllu wàllu ndox mii ñuy wax man yaakaar naa ne dañ cee war a dañ ko dañ cee war a xaatar baax baax jàpp naa ne Touba moom loolee lu luñ ak lu ñu mën a def ak lu ñu mën a wax li fekk nit ñi nanguwuñoo fay ndox wala ñu wutale ko fay ndox wala wala ñu am lu ñu ko wutale fay ndox ndox moom du du day loo xam ne nag day dëgg goo xam ne kenn du ko wax waaye ku ne xam ne ne euh, état bi du ko wax waaye mënu ko sëriñ bi du sëriñ bi du ko wax ndax xam ngeen ne ñoom seen seen seen baax bokkut ak bokku ci ña leen jiite woon la leen fi fekk lañ fi lañ fi lañ fi lañ ci defutoon rek duñ ko duñ duñ ko bëgg a def waaye kon nga xam ne ne ndox moom ku ci bëgg am lu doy bëgg am ndox mu mel na war a mel faaw da ngay génne xaalis di ko di ko di ko fay ñun ñi kenn ku da nga dëkk bëgg dëkk boo fa delloo da fay ndox man mii man mii di wax ak yéen daara ja nekk mi ngi fii ci wat mi ngi fii ci wat Gossas dama fay fay dama fay fay ndox contrôle laa fa am di fa fay ndox ak keneen ak keneen keneen jàpp naa ne bu fekkee ne bëgg nañu am am ndox dëgg dëgg li li jàmbat yi yeeg yëpp du ko saafara faw nit ñi dañuy xam li leen war di bañ a jaxase addee ak ak ak warteef ci ab dëkk addee nit ki boo joxee dafa jox ngir yàlla ngir mu xaar ko ëllëg fa mu jëm waaye nag nit ko ne fa nga dëkk sa la koy jagal lay tax nga nga dëkk nga nga dund ci na nga war a dund loolu nit ku ne yaa ko war a defal sa bopp sëriñ bi li ñu koy jox li mu ciy def ñi ñëpp teg nañu suñu bët muy lañ mën a suñu bopp ci wàllu diine ca la ko jëmee waaye dëkk bi nag àgg na foo xam ne bu ñu bëggee ndox mi am man jàpp naa ne faw ñu fay bu ñu mën a fay nag ñu wutal ñu wutal fay gi mu am lu ko wutu ñun nañ xool kenn ku ne la nga mën ñu dajale ko kër gu ne joxe dara yaakaar naa am na kuréel gu fi nekk maa war xamati waaye maa war xamati ay ay ay barkeel laag yooyu yooyu yooyu yooyu du du du lijjanti du lijjanti jafe-jafe ndox mi li ma gëm daal mooy ndox moom ni courant mel ni téléphone ni téléphone mel ni yëpp mel dañ koy dañ koy fay te nag xanaa xel nanguwul Sénégal yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy fay ndox ndax nag dañuy dajale leen waa Sénégal di fay di ko di ko la waa te tey nag li li li ma xam mooy état état amul amul xaalis boo xam ne da koy da koy da koy da koy luxus li ko nii jox lay dajale delluwaat leen ko kenn ku ne na nga xool ci na nga xool fi nga dëkk rek moo xam moo xam si groupement de femmes yeeg daayira yeeg association yeeg ñooñu ñëpp dañuy dajaloo kenn dañuy dajaloo jël dajale seen àll jël ñenn dénk leen ko ne leen defal leen ñuy defal defal leen ñuy waaye ndax da ngay boo boo taxawaloon sa association wala sa groupement de femmes lu ma doon te jëlu xaalis jox leen ndax dañuy defal daal li li li am solo mooy moo xam état bi la moo xam maire bi lu ma doon xaalis bi ñu am mooy li leen nit ñi jox leen jël di ko delloo ci ñoom bu leen nit ñi jox jox dara duñ duñu dara kon nag ni ni ñuy fayee courant bi di ko fayee leneen bu ñu bëggee ndox am fi faw ñu koy fay loolu mooy loolu mooy léegi bu ñu ko deful nag jafe-jafe bii du fi jóg mukk état liñ man mooy jël yenn investissement yi nga xam ne nit ñi mënu mënul seen bopp bënd ay forage yu mel noonu waaye nag am maa ndox mi wax dëgg yàlla jàpp naa ne bu ñu bëggee te kenn ku ne li ngay li nga boo dee xool li ngay jënd ci ndox fi mu ne nii ci ndox mu neex ëpp na man sama man sama sama tool li ma fay fay yaakaar naa ëpp mënul 15000 francs mais kenn ku ne li ngay jënd ci ndox noonu mu neex ëpp na loolu mar wi am li ngay daj ci jënd ndox métti na taru tax na nga am nga am nga am nga am nga am nga am li nga bëgg lii nag doonul loo xam ne duñ duñ toog mukk ba sëñ bi jékki-jékki wax ne waa Tuubaa nañu fay ndox état bi xam ngeen ne loolu du ko def ndax réalité bi laaju ko waaye ñun ñoo war a xam ne suñ dëkk bii lim laaj ñoo ko war a defal suñu bopp bu fekkee mënuñoo fay ni ñëpp di fay kër gu ne war ngaa mën a am loo waral ñu dajale ko yor ndox mi loolu bu ko deful jàpp naa ne cooy bari rek ay jafe-jafe ndox mi ndox mi du saafaru loolu daal yaakaar naa ne ñu war nañ cee bàyyi xel baax baax waaye ala kulli lu mën a xew rek nit ñi nañ bàyyi xel dëkk bi ak ak ak ak warmay dëkk bi ak aaday dëkk bi dëkk bi laajul ay manifestation laajul ay jàmbat tey sax nag nit ba nit bala ngaa jàmbat da ngay def la war dëkk bi daanaka genn kër gu guy fay impôt mut waaw bu fa yow nangoo fayam ndox te boo manqué ndox yaa yaa yaay ëpp coow ci ci ci nit ñi loolu xel nangu ko nit bala ngaa bala ngaa laaj say say say say say say say say say say droit say droit mooy say àq da def say say say yelleef noppi waaye impôt sax nit ñi nanguñ koo fay te tey dañ ko war a fay man ma maa ngi maa ngi këyit impôt boo xam ne suñu sooy ji boppam ma ko daggoon te te te ñoom bu fekk bu ñàkk bu ñàkk fay waroon am ci ñoom ci ñoom la waroon amee ñoom ñëpp dañaan fay impôt waaye nangu fay impôt nangu fay ndox te te lu ñàkk lu ñàkk nag ëpp fi coow am na ci loo xam ne dañ ko wax état bi duñ ko wax waaye dañ dañuy mooy li dëgg mënuñu ko mënuñu ko li ñu war a def mooy nañ génne suñu alal yi jë jëmee ko ci ci luy defar dëkk bi moo xam ci ndox la moo xam leneen loolu daal man mooy mooy xam ne gëm naa ko